manifestation yu métti yi nga xam ne moo amoon ci réew mi fan yu ñu wees avocat wu Ousmane Sonko bi di Juan Branco moo ngi wax ne suspecté na lu tolloo téeméer ak ñaax ci ay nervi yoo xam ni gouvernement bu Sénégal moo leen daal di recruter. waa ci nga xam ne ñoo nekk waa présidence de la république moom njiitu réew mi ci boppam moo tegoon ab système bu nga xam ne day daal di utiliser léegi li nga xam ne kat mooy doole nguur gi ca benn wàll ba dafa jël ñi nga xam ne ñooy ay borom doole ay nervi jox leen koppar jox leen doole. ngir rek daa di ah, duma ñi nga xam ne ñooy askanam. juróom benn fukki ay nit yu ñàkk seen bakken lu ëpp ay junni ci ay kirim jàpp ay nit dal di leen tëj te loolu teguñu ko ci benn norme boo xam ne droit international la waaye tamit ay nit yoo xam ne dañoo atteinte à la dal di jël loolu yëpp dal di koy considérer comme crime contre l'humanité di expliqué tamit waaw loo nga xam tan mooy di ay ñaawteef dañ koo def ci attaque générale bi nga xam ne ci askan lañ ko daal di diir ñoom ci jàmm lan doon jéem a fësal li nga xam ne moom la ñu gëm ak li nga xam mooy seenu kàddu waaye tamit di ñaawlu ñetteelu mandat bi nga xam ne mooy bu njiitu réew mi. ci loolu Kouane daal dinay déposé benn plainte foofee ca cour pénale internationale ngir rek dal di xeex li di régime bu Macky Sall bi. waaye li nga xam ne tamit moom lu ñu bëgg rek mooy déclenché ay procédure ca France fa nga xam ne mooy cour pénale internationale. ak dignitaires yi nga xam ne ñoo bokk ci résime bi ñoom kat dootuñu mën a teg fenn seen tànk fi nga xam ni mooy continent bu Europe. ba tey Juan moo ngi daal di exiger lii di gouvernement bi mu mu daal di foo foofee ca bureau du procureur ngir rek mën a seetal deram. waaw Sénégal bu fekkee ne nag dëkk droit de l'homme la. gis nañ ne daal ñoom régime bi war na respecter li nga xam ne mooy statut droit de l'homme kon war na dem daal di saisir moom ci boppam ak ci coobareem bureau procureur ngir mën a ragg deram mu mel ni ay document ay contrat ay vidéo wala sax ay yeneen preuve yoo xam ni Juan dal dina koy am ba mën a établir li nga xam ni moo di téeméer ak ñeenti tonnes ci arme yoo xam ni gouvernement bi moo ko dal di jënd dal di koy conserver ngir rek mën koo jox nervi